this way. de nit ñee ko indi ba fii ñu wëcc ko te supermarket ba newu fi sori ak supermarket ba fam neex leen dee tax ñu di ci gàddi sapig ba xag si sànni ko sànni ko sànni ko allo jàmm ngeen na mu escalier yi la yëpp laay xéeg bañ nee waaj a suuli te suma xenoon duggit ma koy xéeg de to sum escalier yi la Alhamdulillah. jàmm ngeenam alhamdulillah tabaarikàlla seen yaram jàmm <laughs> suma jëbi rek laa leen di wanati de jël téléphone bi téena ko si asamaan si paak bi ma dee toog a ngi nii ak tëdd su ma doxee ba fële cat lale fële cat lale laay tëdd ak a ma tëdd fii su ma jógee ndugg fa bëri ñax de fañ ko war a ko war ñax mi daa dagguñ defu leen dara bu leen nangu man leen de na ngeen nokki ba tey te sant yàlla suma këpp bi laay seddi di ko defaraat fi ne nii may tenkem tenkem yi dem fa leen duggee jërë jëf tenkem tenkem yi dem nduggi fële lu néeg bi sax gone yi xamuñ bota ak lan oto mi pompeteer it ma ko war a jënd ak lan sax yu sew sewaan daal suukar sax it fay waaj a jeex de meew it fa jeex juus xamut de mën naa xam ma jënd benn juus juus bu bari baaxut ba diina lu kii bind nii lum da ak lu may yuuxu nii lum da just because man kenn ne si mbedd mi a tax ma yuuxu yu know man naa wax ndànk ngeen dégg ma ba tey allo Penda sista Jambo nakam xaama seen kon affaire bi duy nangu ma jël kenn léegi su ma jëlee ni duy nangu gisoo ma jëlee ko dugg de ana nga jël de waaye duggoo sama xarit bi allo maam xaw mam nga tudd xaw jël naa ko waaye dugut xaw ma dafa dindee ko wala affaire bee ko dindi xaw fay lànk ko jël nit waaye moo ma jël sama bopp wax ak sama bopp allo ami ma laa nopp ah jërëjëf yéen ñi ma nopp yëpp jërë ngeen sista Jambo xaaral ma jël la ba xam ndax li film bi dana nangu ah, foofu mel nangu de allo nangu na. allo sista jàmm waaw nangu na de naa. noo def yaa ngi ci jàmm. maa si jàmm rek. naka xale gi ne déggante. gëj naa laa dégg kay. billaay sama téléphone bi waxoon naa la ko dafa amoon problème. ah moo tax kay. loolu la taxaw ba pare ma demoon gàmmu ji tamit. oh. dama gàmmu ji tamit naka gàmmu gi baax amoon ah. ngeen gàmmu gi neex. waa alhamdulilah gàmmu nañ ci jàmm ak salaam. ndox mi ma gisoon noonu foofa ndox mooma sa gàmmu gala wala sa màggal ga. déedéet ñun de fi nekkoon amul ndox de amul ndox de ah. xam nga ndox mu ma gis mu bëri ci tent bi tent bi fee dell ak ndox nit ñi di ko tànk di ko naan ndox mu tilim mooma. loolu fan la ndax ci ah, gàmmu gi la ah loolu de man gis danañ rey seen bopp gis naa ko ñu di ko tànk di ko naan foog ne fa ñuy dem àjjana wala seen gisuma ko yàlla ñu ngi naan barke sëñ bi nañ barkelu ci ndox mi xamee ay ka di tànk ndox mi ci suuf di ko naan ah, ndox mu ñu kukk ndox mu xonk coyita tilim weex tàll tilim laa ilaha gis naa ko man de ma tiit vidéo download naa ko sax Touba la mu ne. xaw ñi ne fa ah. ñuy xaru. waaye ñi fa ñuy xaru dañuy xaru kay ndox mu tilim moom fay rey. lii de dara jaru ko. barki yàlla fañ doon tànk ndox ma ca kaax di ko naan ñu ne ñu ne parce que mu nga doon taw te taw ba dugg ca tent ma. toog ca kaw ndox ma di. doy na waar loolu doyut ñuy tànk ndox ma di ko naan. ah allahu akbar gis naa vidéo man de ma jaaxle tit tiit buga jooy buga ree xëy suñ askan wi le déet la dar jar na jar mel nii moo ma jaaxal lu tax suñ askan yu mel nii doy na wa doy na waar waaw anyway doon ware baare yow nag na nga def maa defoo dara may nii rek am yay si jaamu baax maa si jaamu rek dem doxante ji fale jëndi ndugg ah da dem ndugg waaw fa xam dugg sew yi moo si néeg bi ay meew ak yooyu. ah waaw waaw waaw waaw nga dëgg kay. naka xale yi ngi si jàmm ba. def ñu dara jàngi ah, dëgg kay. ah that's nice. sa xale yaa ngi ok. waaw xale yi ñu ngi si jàmm. Mhm. ñu si jàmm. ah that's nice. jërëjëf waay namm naa si vidéo yi torop. Mm. billaay ami maa la raw billaay sama xel day nekk ci yow ba may naa ami gis nga ko naa dugg ci ami gëj naa koo gis waaw oh maa ngi nii rek dama dugg nii rek yam ci yow ma ne xaaral ma dugg gaaw jërëjëf waay waaw baax na ci kanam ami waaw jërëjëf waay tey damay dugg nii rek moo tax sax waaye xam naa su may def débat beneen yoon incha allah na mën naa la si biir waaw ok maa ngi si maa ngi lay seetaan maa ngi seetaan ok ci kanam thank you bitigam Nigerian bay jaay ay jën ak yooyu mu gën a fañ fay jaay ay jënag ak lu ne lañ fay jaay netetu sax fañ koy xam ak géej géej gi keccax waaye fa xuuteeg suñ fa suñu géej yi nag géej gi Nigerian yooyu ah fay neex ba tey waaye ak kas seer na ne am na kuy jóge London sax de ñëw indi ay gejja ak yépp yëpp bay ñëw semaine bi ñëw nii wax naa ko mu indi xaaleel ma koy jaay ku ku bugg géej ak yéet dëkk Edinburgh dama ko wax ma wax ko borom mu indi xaaleel ko léegi tey mu ñëw fan yi lay ñëw de xawma gannaaw suba xawma gannaawaati suba soobee yàlla gannaaw suba wala gannaawaati suba ami wooma yola kandaan hooma kuma xamutin ma di ko homoos fii laa duggee si waaye may njëkk a dem fële ca bitig bële waxaa nu ma fay lijjanti na xam nañ comme de seen nga jigéen jële fay yalwaan kële toog sa suuf na le ku foog ne fii amul yalwaan kat te moo ko tey de ñoom ñu ci bari ñuy yalwaan noonu naar yi la naari yi ñoom seen yalwaan bi ñoo koy tey taxawal danaa ko romb fa ñuy xuutee tubaab bi jonki yi yalwaan fii ba xam tubaab bi jonki yi yalwaan ngir criminal leen dorog la ñuy use ba mën a ñu mënatuñoo liggéey ñit far toog di yalwaan waaye fa xam nag ñoo dara jotul ñoom la ne ñu jógee Romania dëkk bu ñuy wax Roumanie ki ñoom lay niroon ne fi di yalwaan dafa ñuy jullit jullit lu de muuru kaala gi mel ni jullit te duuñ jullit kii ñoom lay niroon ci ñoom la bokk leer na ma duma leen di faale sax te ñuy fen dara jotu leen fa ñuy fen soxla yàlla waan waaye koy yëg man kay suuf ma xaa fees fiisam bu ma ko soxla ñu bëgg bañ nit ñu ñuul yu yabaate yooyu waa ñoo gën a bañ nit ñu ñuul te bon wala koo xam ngay liggéey ak ni nit ñi jógee Poland sax noonu lañ mel ñoom ñu ci bari bañ nit ñu ñuul te bon kat ñoom ñu ngi fii ni ñun di xal ko fii ni ñun bu ci seen dëkk ñëw fii di xal ko ni ñun ah di ñu siise file moos dañu si dañu siise Clémence kër yi fa mel ni gars yi xamuñ good deal good deal de ñi xamuñ ko tey mel ni xam nga good deal xam ah seen limon yële day rëy na te foogoo ma ci mbuus ak limon ngeen ñëli foog naa ne xaw ma ndax may xam limon am déet ah tey dafa mel ni xamuñ góor bu baax hi good deal de mooy maanaam seen bagage yi buñ ko wàññee yéen ñi ñuy loolu moom laay wut nii de di sakkanaa sama butul xaaral ma dem si beneen bitig boole rek Are you in the queue? Yes. Thank you. Moustapha yow ana sa jabar sa jabar bu la jaafee day dugg ci vidéo bi é xam na ku may kool te kool bi important la de xaar leen mu xëyu ko guys maa ngi ñëwaat jéggal leen oh my god jéggal leen ma guys jéggal leen ma jéggal leen ma dama xamoon phone call te phone call bi dafa important dama ko war a xëyu moo tax dama ko waroon a xëyu phone call bu important la woon moo tax jéggal leen ma jéggal leen Mouhamed yow ma naan Mouhamed sax Moustapha yow sa jabar anam Moustapha yow looy wut ñemexuma laa jël ah wallahi borom jabar yi de topp nit ñi nii sista jàmbu xaw ma da yaa ngi di ba tey ndax dama xamoon kool abandon live foogo naay dagg na sax ndeke mu ngi on ba tey gis nga jigéen ñooñu noonu jigéen jëli na la ki ma leen doon won dem na sax ak ah, yeneen nit ñi mel noonu jógee ci seen dëkk noonu dañ doon yalwaan fii ba nguur gi topp leen seen dëkk jë thank you so di yalwaan di sàccaale su ci ma ko jërëjëf xar naan ko thank you su ci ma ko jërëjëf instead of wax ko thank you ma fàtte ne di yalwaan di sàccaale ba nga xam ne gi nga juus bind ci guyaab te du guyaab waaw fi ne nii fañ ciy bind guyaab te du guyaab kenn xamul lum do duwut guyaab menn mi lañ jël nal nal ndoxam guyaab mi def ko jus déedéet du ko de waaw duwu ko fañuy fen a ah, xanaa ma jënd ci benn rek du ko waaye du suñ tubaab bi lay mën a fen te bon te kenn xamul lu ñuy jël nag jaxase ko jàmb ko nag sardeñ yaa nga ne de suma sardeñ yi may jënd ma sarden yaa nga le tubaab yi li ñuy jaay noonu duhut guyaab ma ne man de almet laa gisoon fële tuuti ma jënd ko sax fàtte ko ndik fun kool ma xam a tax ma fàtte waaye bi ma doon xaar pour fay noonu gis naa almet ga ndikka di ko jaay te ka almet gi soxla fu ma ko de waaye bëgg koo jënd rek ndax mu fàttali ma Afrique biscuit yaa ngi fi ne boo ko jëndee gune yi fa ñuy mel ni dëmm surtout aadi te biscuit yi baaxul si yaram moo taxit duma ko jënd ko romb yi wëy tamaate loqati yaa ngi nii yi ñuy def ci butéel yu mel ni pénicilline tamaate loqati yi ñu ne baaxul si yaram di waaye nu may def ñàkk a pexe jël ci ween lii ndoxam koko la coconut lipin mil fa neex boo ko toggee kori wala dara ceeb sax boo ko ci defee fay neex surtout ceeb bu weex ceeb bu yàpp bu weex nga def si lii ñebe bu xonq bi fa baax si yaram de waaye pot yi ko kaste moo baaxul ci yaram yi mooy problème bi de ñebe bi it fa baax si yaram waaye pot yi moo baaxul si yaram waaye nu nit di def xanaa jënd ko rek biskit yëpp a ngi ni jóore dafay rey biskit yëpp a ngi ni la jóore dafay rey ku ko moytuwut yi yëpp yëpp fay ree ku ko moytuwut ku koy lekk-lekk bu ëpp ngaa reeb ko xane nga xam gune yu xuppal mais ni aadi ak ak yaayam man xam nga bëgg naa lekk waaye sama bëgg lekk gi lekk gu bon bokk si faale ma lekk gu bon man suma lekk gu bon xanaa africain lekk gu bon waaye pour lekk tubaab yu bon yi faale ma ko ko xam ni doom yoo xam ne fañ bëgg lekk yu bon ta nga di leen ko jëndal saay ne di ko jur xamal ne yaa ngi leen di rey yow ci sa bopp xam ko nag ne yaa ngi leen di rey soos yi sax baaxut waaw yëpp baaxut waaw léegoo léegi ma jënd ko bu ndaw ni si jeexe ma toogaat lu yàgg bala ma koo jënd noonu laay def ak soos yu baax baaxut yëpp léeg léeg ma jënd ko bu ndaw toog lu yàgg soog a koo jëndaat waaye boo neexee di ko rimaas sa néeg ba jos bi ko gune yi bugg nañ ko dafay rey xamal ne ngay rey gune yi yii yëpp gune yi fañ ko bëgg dafay rey yii yëpp nga jënd ci benn ñaar kenn ku ne xam benn nga toogaat lu yàgg su ko jënd lii yëpp fañ ko bëgg dafay rey lii yëpp moo tax duma ko laal lii yëpp fañ ko bëgg dafay rey bu boo ko jëndee te toog lu yàgg bu ko jëndate soo ko deful boo ko jëndee ñu jël ko riib sa mburu bam tooy surtout aade da koy abuse de riib ko ba tooy guddee bëccëg suba ngoon muy riib ba jeex bu ne fay xam feebar de lu mag rek a koy xam de bu bitim réew yi ñu bari fañ xam feebar ngir lekk bu bon mënuñoo daw mënuñoo noppi ngir yëpp a bon meew yi sax baaxul fii fii daal yëpp a bon waaw fii yëpp a bon Afrique it noonu la waaye Afrique yi gën a bon ya lañ indi mooy problème bi luñ defar mu bon ñu indi fii defar ba gën a bon yóbbu ko Afrique ndax Afrique ñoom seen nguur gi wetuñ lu ñëw rek dugg lu ñëw rek ñu nangu mu dugg moo tax fii danañuy nangu yenn yi waaye yenn yi fañ koy xaaye waaye Afrique lu ñëw rek ñu nangu sorry lu ñëw rek ñu moo tax luñ defar indi ko fa lu baaxul la su ne nii boto yi it baaxul muy bër yi waaye yi ci tane ta nga xam ne fa fay ganaar maanaam yi moo tane yu nooy yi ne ci pot bële nga xam ne ngay laal muy rayee te yii lu tax nit ñi bugguñ ko bitim réew mooy fay sedd doo ko mën a def si mburum <laughs> man la ñuy wax maa ngi taxaw xame téléphone bi di leen xatal xàmmee naa leen tubaab yu bañ nit ta bon suma yoon ñëw ci kenn ki suma doom bi dëkkandoor bi la man lu ma jotee ak ñoom téléphone bi moo ko xamee wutit may ndugg suma bi taxut ma taxaw waaw téléphone bi maa di dox waxee naan jigéen jëlee nga taxaw xamee téléphone ba yow mi taxaw di waxtaan sa xarit nag yabaate ta soxot ta bañ nit lii laa bëgg a jënd kostat waaye kastaat bi ma bëgg jënd mooy bu sunguf bi nga xam ne nga koy togga sa bopp mu ñu suma ndugg mi tiim na that's bu sunguf bi ngay togga sa bopp laay wut anam dañ ko daan xam de ni moom laa xalaat nii man de xamal ma fàtte lum da waaye barke yàlla fa mel ni faa ma fàtte meew bota ma ko fàttali ah juus juus moo xamutoon léegi sukar laay jënd defara sama bopp basaab déedéet kër jaa ngi amee basaab sax lii laa jënd pom pom yaa ngi ni le xaw ndaw pom yu rëy ah lii de yal na ko neexee pom yu xem ni jóg ku def safu dara allo seen pomme yu rëy yi léeg-léeg fay ba xay dal hi uh, no thanks I got two bags here the one I'm carrying and then one inside it uh-huh. Thank you. Thank you. Hi, pal. taxawle ma dem jaari sa Nigerian bala wuti fa jën sama mbuus gaa ngi nii waaye dinaa ko xenu de pareegum mu ngi waaye ma koy ñëw xenu si waaye may jaar sa Nigerian ba pare lijjanti fa jën ba pare soog a xenu sama mbuus gi le Nigerian baa nee na leen di jaay jën gune yabaate yaa nee na gune yële mooy gune yabaate yi dee jam nit ka di leen waxee goloor jos ku dem danañ ma ko def fa mel ni tey fañ say ñu ngay wëreelu di këñ tooñ gune yële la fa ñuy dugg ci bitik jël leen neex daw génn di toroxal nit ku ñuul yeeg naar gan ñi daa surtout nit ku ñuul kuñ yeb ku ne ngay romb ñu jam la dara pare du mooyu mel ni du ñoom lu ne la ñuy def nit ñi daa mooy yéen ñii fañ tëjëm fii de mosuñ marché pax yi nii de waaw marché pax yi leen nii lii mooy suñu xatu yi xaare guddi muy jaay nii lu tax mu di ko jaay laa xamul ba Cosa con. Ah, lo sento bene. Moye, frig. Ana jën yi jën yaa ngi. Jën. Fi axa leen yi la rek xaw li nag ku dem fay seede bii laay dikkati ceeb ko ceeb boo xam ne bu subaak jàmmee filmu ceeb ba nit ñi gis ko nit ñi wax ne mënu maa ceeb yépp tam mën a fen gis ko seen xol bay dagg ma taaj jën wa lëmm ceeb ba di ko lekk nañ dem seet ñaata xaw bay seer nag de illa li fi ne bu ko fàtte te rekk laay deewal mbuus bënn xam nga lu ko bënn mbuus gu naasi te bënn dee bënn ak li nim seeree moos boo jënd nga jënd bu baax mooy xar saxaxa bënn jën yu bëri yee tax mu bënn niñ koy teg yëpp gën xay xay bi am jaay jaay day xool bii dafa naa bëgg xaa bu bëgg bu kiiwee dafa xaw bi dee bu ko jéem a ceeb ko xaw bi di bëgg te gis dama koy dagg ceeb ko ba rof bii ba bënn ba xar-xar bu rëy gisoo mooy ne galaase bi baaxut dañ ko war a sottandi bu ci geneen buusa duñ ko def ah man de ko rek xam naa prix benn taw bii di noo ta xem na bëri juróomi jën yu rëy te ah, xem amin oh ceeb ko fi di wax ne mënuma toog bi di suma ennemi laa wax de waxuma suma fansi ñi suma ennemi tey wax ne mënuma toog bi yëpp tey lañ leen di jaale wala hello how much is this one suma fansi yi wax ne mënuma toog waxuma leen yéen de yéen ngeen ma bëgg tey kaf xaj yi laa wax xaj yi jaale yi tey rek laay dee xama ñaata leen seen ñaata la jën wi nu tudd sax si sa jàmbu xam nga nu jën wi tudd lu koy dagg ci digg ceeb ko xamal ba subaa jàmm rek incha allah dagg ci digg ceeb 16 pounds? Yes. Hell. Okay. Do you know, you don't have to wait or just. All yes. Okay. No problem. Let me get some of the stuff here. Some jaxatu. Wait, sama mbubb maa ngay Mu ne fukki pound la am. facendo sempre da Elvalo. ki yàlla li descend jaxat la amul mel ni ay gannaaw yu jaare rek xaw mu moom ni rek laa bay barki yàlla buutara suma doom bi ñibbi naa ko yàgg barki salatu fatiha saa yi man ko wax te caaxaana mo si dee sax aareen lii rek kenn xam ne lu la ok oh, it's half of the price because they're old. Yes. Okay. I, I should get more maybe. How much is those three? Let me see first. You know, you guys a little expensive now. <laughs> Bless you guys, but you're a little expensive. suma jën yii bu subaa jàmmee ma bu xoos xoj ko ci ndox togg ko ceeb boo xam ne su ma géejee day ñëw jeex mooy problème danaa ko seet foog naa fa jeex dana xama benn ca def te xam na kuy ñëw indi si géej ak yéen nag ah ok that's good that's fine don't worry I already have some in the freezer even about two or three I don't like freezing them I Unidos Ba taxaw leen de ma lijjanti sama ndugg mi yëpp dikk xenu ko ah it's just I don't need it what I'm gonna cook is yeah I'm gonna cook something I don't need that for next time thank you so much so twenty a bag is five people okay yes in a Yes, because this bag is. I can try putting it here, but it's better I get a bag for it. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Yes, Mujim. Okay. xaw leen ba ma ceeb ko baaj jaam xaw ma yéet ma yéet ba jeex na ma xamoon sax duma ko toggee keroog waaye danaa ceeb loolu amul yéet yi dana neex lii de kenn mënu ko thank you ak yi ba xam du Mm-hmm. Very good. good I'm ready now. This <laughs> Sorry, I'm on my phone. <laughs> I think so. I don't know. You there? Okay, see ya. waaw waaw xëy na suma mi ni yeneen nit ku ñuul yi fu yi fañ koy bañ de buñ ma gisee mer day waaja de te personne yi seen yoon newu ci waane te sibbutu te gëmadi seen bopp rek kaliñ koy naqa mer la moo tax ñuy mer fañuy mer ak tubaab yu bëggul nit ku ñi fañ fañuy mer ñi ci def fañuy kontaan te xam ne jigéen ji de gëm na boppam te ñemee liggéey ñu naan ma yow nii loo ko mënee ah yow de ñeme nga liggéey ñeme nga tàng man ne leen waaw waaw man si ñeme tàng waaye yeneen nit ku ñuul yu fuuy gune yi yabaate yaa nga ne dinañ ma tooñ buñ ma gisee ma xenu kele bañ ma gisee ma tooñ xam ma xenu xam nga luñ ma saxal ma film ñu ngay wax seen nañ ma ñu gën a leen kele ma gisee ma xam nga luñ ma wax ñu ne ma loolu ak garab bu ci gën a naqadi bu ci gën a yomba def def def def jikkooy golo jooju nuñ koy waxee sax xam nga lan xaw xaw xaw ma comme golo daal ñuy def comme noonu ne ma loolu ak yéeg si garab bu gën a yomb ñuy wut di ma film fa ñu ko nag na ne dinaa leen rey <laughs> ñu ngi bëgg a film fa ñu mel ni kuy xam ko kool xutuñ kool de man la ñuy bëgg a film barki yàlla taxawal ma joxe gànnaar naa urbati caméra da ko séen ñu di ma film maa leen gën a do bandi kuñ may film ma film leen taxawal ma urbati caméra taxaw man la ñuy taay ba ma romb leen ñu film déglu leen ma ak ñoom le <laughs> ana keneen ka xaw ma ana ka ñu gën a le faale wuñ ma feel muñ ma faale wuñ ma waaye ñu ngay ree barki yàlla gudee fañ ma doon ree ba xumb bi daanu <laughs> am na góor a nit ku ñëw guy ci welo bi noonu di ma sumaay la di xool bëti jigéen africaine bu ñëwee liggéey ak góor ak tubaab googu yëpp fa xam ni ñoo xam ne fañ leen xool ha kii de ñeme na tàng ndeysaan ñu kontaan te xool la yéen yi fañ lay yërëm sax waaye nga gis ñoo xam ne fa di xam ne xaw kii kaw-kaw la wala lu muy wut ci suñ dëkk bi <laughs> tubaab yu bañ ni ko fañ le xool bu ti xaw kii kaw-kawe na wala ta dof na ñibbi waay ca ker mango ya foofa la xaj jikkoom jile moos ak yeneen ku ñuul di la xool ba ti xaw kii kaw-kaw na wala te te dof ñu rusloo waay di wane suñ xaada na ñibbi waay ma leen allo xaay man dëgg ni la di cekkee di leen seetaan lu ma leen man nañ maa tere xenu moos nañ ma jëndal oto di ma ko dawalal xor yi di la dawalal foo bëgg ñu dem sax fay de kum do bu dee man nga ma ñëw ñu jaale la robi la digg bëccëg billaay bëgg naa la thank you suma fansi suma réel fansi yëpp jërë ngeen suma fansi naafeq yeeg fansi xeeta yi yëpp oh my god billahi guys maa de bàyyi ko noonu rek manage néeg bi noonu bot it's not like lekk xamut bot yu sew sewaan yooyu moo xamutoon far ma jëndaale ay yeneen am nañ jëndaale jën kuy def bant yooyu di ko koros noonu ma dikk dindi ko koros bopom ñu robi ko ku muy koros noonu bant yi xonq yooyu ku ko yónnee kum dindi leen ko bàyyi tooñ ami ku tooñ kum do ku ma mooy sama fans ak fans yi naafiq nga naan la faam fans yi ak fans yi ak real fans loolu ku ne ko xam kuy def vidéo ku ne ku nit ñi xam si média bi ku ne yow loolu la ci raam nga ñëw bu dee loolu ngay wax ba nga di ci xokkoo jaasi yow ndax nga cee bokk ci fans yi naafiq yi ak fans jaale yi nga bokk anyway yéen a ko yàq fay gar rek kuy gat kum do taxaw ma ñëw dindi la sa bopp ngay wax de bu dee man ngay wax ngoog dindeekul fa xaj tukkul ma waxee ni man nga naan fay gar rek ba may gat lu ma gat lu do ah yoo xam nga ba kee may gat wuy oto ngi dikk war oto baa ngay réewa buga dee jékki-jékki rek gis ci nit ku ñuul ki la xenu ne ci kanamam gëb téléphone am mais jaaxal tubaab bi nag de suma xenoo pare ngëb mbuus gi xenu baag bi na ci téléphone bi boole yëpp rek tubaab yi fa ñuy réew ak pare ne wata ki lu ma nee lii yëpp <laughs> moom kenn <laughs> yéen ni may xenu bu rëy ci gannaaw baag bi sax tey rëyu de baag bu rëy laa xenu si gannaaw boole ko ngëb mbuus gu rëy ak xenu mbuus gi yëpp def naa ko fi at yii xamul lu ma daju xamul lu ma gune yi at yii la moos de man rek du may give up man rek si gëm sama bopp nag tey allah kii lu mu bind nii man de xamalu ko bind laa kuy fen kum do xaadina si yëpp fa ñuy fen kay yi ci xaadina si yëpp fa ñuy fen dëgg la kay man rek maa fi wax dëgg ci xaadina si yëpp ci fenkat yi yëpp man kenn rek maa wax dëgg ñi ci def ñëpp fa ñuy fen ay fenkat yu maga maga maga maga mag lañ maa si ngoone mbaay yi xama ngoone mbaay xama mbooje di fen ne góor ga laalu ko tafay fen góor ga dana jël loxoom ya mel ni ku ngaane tëdd ni niw mu di ko bësal góor gay catcoti rex-rex yi tëdd na yereŋ kon ñu jaale ko wala góor gu la yab ba ne ma la bës ma ba ma ñëw ratt ma ba ma ñëw góor gu la yabee noonu dana la ñàkk laal boo taxoon day sax mu làmb la mbuuja maanaam mbuuja mbay mën a fen te fay feni daf lay fen mbuuja mbay buy fen fay mel ni ku ne ko xam ñaari xat dafa yab nit ñi nag ki nga fenkat yi ne ki askan wi yëpp fañ yab nit ñi fii fa dem fii dong la dem moo tax boo fii dox doo gisa ko ah dongo la yéeg ca kaw <laughs> dem ba fële mu wàcc moo tax suma enoo bay yéeg fii ah nit ñi mel ni Mbodia Mbaye moo bëri mën a fen te yab askan wi le moos bu ñuy fenal askan yi fa ñuy mel ni ko regu ndaw ah soo bëggutee wax li nga dund nga noppi wax lu nga dund neexul man xam naa si dara bi ko askan dañ la koy xasee wëruñ soo waxee dëgg gi ñu xasee la ko kon nag yow waxal dëgg gi wala nga noppi wax dëgg gi yombul ay noo waaye yow ngay fen waaw te yow li tax sa sa jikkoy xajji la nit ñi yërëmuñ la ci li la dal ni sa jikkoy xajjee la ko yóbbee waaw bu duutoon a jikkoy xajji ngay def nit ñi yërëm la nit ki jékkee-jékkee def la lii ci ngelaw kon nit ñi yërëm la waaye sa jikkoy xajji la moos nit ki nga dem moos wéy tey laay daanu escalier yi la yëpp laa war a wàcc ak xenu bi rek laa dee duma mën a gis fu may dëgg duma mën a gis fu may dëgg suma daanoo ba suma fan suma xëcc si kontaan taxaw ma ngëb téléphone bi fii si mbuus ak jën gi suma mbuus ngoog hmm. ko yaakaar ma daanu ci escalier yi moos ngay kontaan danga xaar ba ràgg ni géej si ma romb lay wéy ceke ceke si wàcc man rek ak di ma protect di ko ma dugg nag ndaw la ma yàlla di protect ba tey benn ennemi mën a dara ennemi bu jóg ne man danga ko réccu fa ngay dee doo ko defati <coughs> mu ñi fi ne liñ jëlee ca supermarket bu bale Sainsbury's indi ko ba fii ñu gaare ko xëy ñi nit axa leen lii yàlla tubaab yi xendu leen jàmm xegg na ma ne ma ñëw reeloo leen rek ci suma ndugg mi ak waxtaan ak yéen maa ngay dem xegg si na already defal xaw ma lan paame moo xawma lan xawma li ngay wax hey suwiti haay xendu leen jàmm baay <laughs> xegsi na xendu leen jàmm faana faana bi loo neex waxee ma ko de xam naa ko li ma doon I love it love it te gëm sama bopp loof sama bopp ak li ma dox leneen loo ma xooxee yaa koy yëg I don't faana faana laa saalum saalum joor jooram ninki nanka do sin maata ok am jóob laa rek tas wat maata ok ok guys xendu leen jàmm baay jërë ngeen jëf waay bye bye yoon incha allah suma tuñu de diwum ko wo kong